Heavy Mess.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 këy tool nee ñu mi ngi toll ci vingt neuf périmètre nekk ci village bu ñu naan Sankaañ ak village bu ñu naan Faraba ak village bu ñu naan Wasadu tool yi banaana ya fa nekkoon yépp taw ba ak ngelaw la gasaxal na ko fi mu ne producteurs yi di borom tool yi ñu ngi woote wàllu ndax ne ñu dañoo lebo ni bor ci banque yi dal di koy investir ci banaana yi jël ab personnel bu fa nekk te fi mu ne li ñu yaakaaroon yépp ngelaw leeg taw bi yóbbu na ko nee ñu fi mu ne bu leen état jàppalewul ba ñu mën a fay seeni bor musiba am moo tax ma ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax suñu réew mi nag léegi saaboo yeewoo gis mbaa dégg xeetu drogue bu bees bu njëkkoon ay yamba sëng ak gens la woon waaye léegi wi ak cocaïne ba ngay jàllaañoo ak yeneen xeetu drogue yoo xam ni suus volet sisa ba tey nag ñu indiwaat beneen xeetu drogue bu bees buñ naan Buddha Blue ñu naan ko PTC nasaraan naan ko pétocrane xanaa mooy toj xorendel xale yi moytu leen te nee ñu xeetu drogue boobu ku koy jël xeetu violence bi ngay àndal ma ne jéggi na dayo laa wax moo tax xoolal rey ni mu ci réew mi fi mu ne nag waa police tab ñu ngi alerté ligue sénégalaise contre le tabac nee ñu drogue bi di buudablu mën naa tojum réew laa wax te nag drogue boobu xale yi ci milieu de loisir yi lañ koy utiliser yu demee ni ki place restaurant ya ak seen appartement ya ñuy jël moo tax ma bamtuwaat ko nee ñu xeetu drogue boobu di buudablu ku koy jël violence dëgg ngay àndal te fi mu ne gis nañ li ci réew mi réew moo xam ni ñoxor njaay ñu fat sa bakkan moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Grand Yoff romb na doy waar ab taximan la ñu fa dóor bal teel mu jaare fa ñàkk bakkanam ay waay mim réew taximan boobu nee ñu dañu doon agressé ab jigéen mu dal di jóg doon ko wàllu ci la ko bal bi dal di mujj faa jaare ñàkk bakkanam ma réew mi dinañ jeex de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax mama ay sa ndong di xale bi réeroon te ñu ne ay way juróom dañ ko yónni woon ci biti gi ngir mu jëndi soow ñu toog toog gisuñu ko di ko wër xale bu jigéen boobu at toll ci fukk ak juróom mujj nañ koo gis ci ab kanaal bu nekk ca Bargny mu ñàkk bakkanam ba néewam di waaj a yàqu way way way way way way réew mim réew mim réew ku yebu génn ko ñu naan déeta waay ci waa wën pël ñaari xarit doon xeex xeex ngir ceeb ba kenn ka jam morom ma mu dee waa réew mi nii lañ koy bàyyee rek ayca mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz